Diagne. waaw waaw waaw. mu ngi siir. waaw nuyu ñu ko. nee na mu ngi lay nuyu bu baax a baax. nuyu nuyu ñu ko sunu sista boobu. Seynabou Seck ferrailleur. Hmm. fayal ñu ko. nuyu tamit sëriñ Abdou Latif Fall. ah ñu ngi bëgg a bari. waaw ah affaire Fatou Diop Diagne nag. Uh-huh. Hmm? Uh-huh. am na si responsabilité boo xam Aïda Mbodj am na ko si. Uh-huh. yaa ngi dégg. na ko Aïda Mbodj xamee loolu. ah si service am la accidenté. ndeysaan taxaw laaj ko mu ne xamu ko. ah, ah léegi mu def fukki at. mais du loolu. ah man mi sa fàtte naa ko de. xam nga Fatou Diouf Diagne. waaw ñëw si cellule de communication bi comme stagiaire. Mm-hmm. loolu ba année la woon. bi nag boobu kii mooy ministre de la femme. Aïda. xam nga. nit mënoo dugg ci cellule de communication par des voies détournées. déedéet mënta nek yow communication nit. waaw cellule de communication. ñu dem quinzaine de la femme. Mhm. ci biir cortège bi. donc loolu c'était sous le régime de Wade. waaw cortège bi def accident. Mhm. ba tey Fatou Diop Diagne doxul. nga ni lan jamono yooyu ba tey mais loo bay ne Baye Adama xanaa la war ko yëg. ah interrogé nañ ko en direct ci télé. ne ko kaaw Fatou Diop Diagne mu ne xamu ko. pourtant moo melul noonu nag. ah. boobu ah, daal ah Badiane de ñu ngi lay ñu ngi lay. ñu ngi lay dénk ah, kaa boobu boobu boobu kaa boobu. Ah, kaa boobu ah ngi lay dénk kaa boobu. ah kaa la de. ah sama Badiane moom jigéen fi yàgg nekkal ma dëgg. de. ah kaa la boobu kaa la. c'est-à-dire man pour hmm. man. lu yàgg yàgg ñoom ñaar dañoo war a toog. non dañoo toog ban Badiane de. Doudou de man bàjjen sax dama kaa ñemewul doxal. <laughs> moom moom dafa war a war a jóg. dem seeti xale bi. ñoom ñaan ñu waxtaan. waaw parce que nag man li ma si xam mooy euh, femme bi tey doxul moom. Mm-hmm. waaw moom moom moom lu honnêtement ça c'est ça c'est pas n'importe quoi. ça c'est en tout cas euh, euh ma occasion ça ben si gënu ko mm. li xew UNPF. mais mais qui qui nommé. te euh, le mandat est de trois ans. Mm-hmm. ki ñu fa nommé sama waaw. dégg naa waa présidence dañoo juum de. Hmm? naa dañoo juum de. mais ki ñu nommé nii nag moom. mais ki ñu nommé waruñu ko nommé. léegi ka fa nekkoon anamu. mais dafa mel ni président yeewu suba teel ne maam euh, Amadou Mame Diop dina naal président assemblée nationale. loolu ñombe la. jombe bi il paraît gars yi juum. mais waajoo ñuy wax secrétaire général à la présidence te mu nekkoon fi moom tamit. waaw moom tamit nag moom tamit xanaa ah, liggéey bi daa commencé yëg si bopp bi. wala stress bee ko ah am na yenn yoo xam war leen dolli. mais nag xam nga tamit aussi euh, euh, Doudou xam nga la ngay fàtte. waaw yow Sonko mii Sonko du dégg lu ko naqare de bu bëggee dégg lu ko naqare ma ay sa jofaa lay taal de. ñoom ñooñu ñëpp nga xam surtout ñoo ngi rescapé yooyu ñoom ñoom Samba moom xaw ma naka Samba ba. waaw ñoom c'est rescapé là. est-ce que ñu ngi leen di déglu kon. mais sañu ñoo sëkkat. sañu euh, kii euh, Mamadou seen TikTok def na xaw ma lan de nee na live prendre à fin xaw ma. Hmm. xoolal ñoom sañu ñoo sax nooy. Hmm. sañu ñoo waxanteeg Sonko leen pour ragal ñu naan ndax ragal ñu dàq leen. yow Sénégal gi terrorisme bu garaaw moo fi nekk ah. Hmm. Samba Ba mais. xam naa sañu sax wax Sonko na ko lii ak lii lii naa bu dee associé nañ ko ci. Hmm. beneen bi nag. Hmm. boo gisee la communication de Diomaye. Hmm. du président. waaw sooxe. waaw mais au palais y personne. mais temps gis naa gis naa euh, fii nag gis nga actuellement nii. waaw Doudou loolu tam c'est c'est important sax nga nga nga signaler ko ni ñu war ci taxaw. mais est-ce que tu sais que fromage bi gars yëpp di euh, journaliste son Pastef fii yëpp fromage bi ñu xëccoo fi ñu toll nii mooy mooy communique c'est la communication présidence. waaw mais boobu léegi. mais dégg naa man pourtant man keroog man am na ku ma yónnee fii dama il faut ma jëm ko retrouver si sama kii sama message waaw mais am na ku ma yónnee ne ma nommé nañu xaw ma lan un certain saaxoo xaw ma lan. waaw comme comme euh, kii cellule communication présidence. dégg naa mais xam nga xam nga dégg naa am na ku ñu fal. mais nga la cellule communication de la présidence. Mm. c'est une cellule boo xam relation média da si am solo dëgg la amam ah, du benn technicien booy jël rek mu hmm. ñëw di théorie di waaw waaye ki am expérience nag ku nga xam ne yenn saa yi ah hmm. yow di nga bugg benn affaire rfm jàllal la ko rapidement hmm. loolu nooy def loolu da ngay def communiquer non lo communiquer waaw loolu communiquer ah, loolu affaire relation média la relation média war naa mun nga gis nga dégg écho benn information boo xam bu fuitee day garaaw nga téye ko. waaw looloo tax gis nga gis nga gis nga fële cellule boobu dafa war a am nandite am bandi am expert. ñu laa jël fii dafa garaaw non non non man bugg waaw ay satu man. yow loo bëgg kon yow yëpp yàqal nga ma. <laughs> <laughs> man man man man. Ah, sama chauffeur sama chauffeur bi. Hmm. nee na ma grand yàq nga lépp. Hmm. ndax fii laa toogoon di xaar. <laughs> naan damay nekk chauffeur DG ma ne ko ay satu moom ma moom ma rey. <laughs> yaa ngi dégg. léegi fu mu ne nii gars yi gis ma. Hmm. ak dégg ma ah. Seydou des fois nag da ngay xataraay fi xataraay yu eh, am. waaw dafa ndànk rek. yow li xataraay yi fii ma si du ma ne. ma ne munoon ma bàyyi sama coin ma xaar ko ñëpp. <laughs> est-ce que dégg nga Serigne Saliou Gueye muy wax. Serigne Saliou Gueye doon na doon na doon na wax mais léegi dafa noppi de espère. waaw am na ñeneen ñoo xam ni. waaw mais ñu ngi si défendre Sonko défendre yoo xam ne ay journaliste. waaw ah loolu dëgg la. mais soo bindee sax ñoom ñoo lay tontu. waaw ah, waaw gis naa loolu. dégg nga fi pour xaar yow nag nga dem dugal ma ci combat ma naan mouvement jéggalu Macky. waaye yow sa looloo bës. mais yow. sa looloo bës. est ce xam nga ni mouvement bi am na tur. du jéggalu Macky sax. noo ko fam ku ma woon ndax ma tur. Ah. Mélenchon mooy la France. waaw su insoumise. Doudou Coulibaly moo créé le Sénégal insoumis. non tur wa génn na. tur wa génn na. bàq